wax naa léegi ca biir ne daa mos am ko weex Serigne Cheikh Mbacke ne ko ci booba ca Colobane la kër gi ci kolobaan sa kër gi xam nga la tax ku fi dugg fekk dàll yi bari ci bunt kër gi loolu ak buntu néeg yi Serigne Cheikh ko lu ma doon mu ne ko njariñ dong nga waaye nit ñi moom fu njëriñ doo fa gis yaay dàll ak yett mukk te muy dëgg te li ma wax seet leen ko bunt boo gis dàll yi dafa submeeku njariñ a nga foofu waaye fa lor ne akoo ko wayefal ak ak delloo nit gannaaw ak bëccëngal ko ak sàggane ko sallaahu dal yi du fa bari moo tax mu waxoon loolu Serigne Cheikh yow na loolu la yàlla defal nit ñaa ngi ñëw waaye ñëw gi ni ñëwit suñu borom dalaa dimbali too féexal la rafaatale la ngay jàppale doomu aadama yi li nga man wax naa la yit ne la sa barab bi barab Sëñ Tuubaa la boo xam ne da ko dénk Cheikh Moussa Mohamed Cheikh Moussa Mohamed dénkaat la ko waaw moom nga ci liggéeyal ba ca borom Tuubaa kon loolu itam barabu fajukaayu aajo la barabu tawféex la kon noo ngi lay sant ci turu Baye Sëñ Diop ak délégation bi àndal bépp ci turu ku tedd mu Cheikh Moussa Mohamed ak section Touba bi yëpp nag bay bàyyiwun kenn di la xamal ni daal leen façon mooy loo nekk daan ko ànd ak yow bu fekkonte ni kenn doo nga leen fii séen nun lay doon loolu daal na nga ko jàpp bu baax a baax ndax dangay kenn ci nun bokk ci nun te saa bu sëriñ bi digalee nga feddale sax laxasaay ànd ak ñun liggéey bi moo tax bi nu yëgee lii tey ñoom ñëpp dañoo am pas-pasub ne nan dem siyaare si la ci ñaanal la waaye nag sàkku itam nga ñaanal ñëpp ndax alxuraan rek ngay liggéey ak xasida yi sëriñ Tuubaa kon loolu noonu la ci sant bu baax a baax a baax di la ci gërëm fii nga jàpp de yi baax na de yàlla na yàlla na la yàlla sàmm taar la ndax mooy jàpp ci alxuraan ak xasida yi ak lëggeel sëñ Tuubaa ak dimbali nit ñi kon loolu tawféex ju kawee kawee la nga jàngal ay nit it bañ mën alxuraan jan dara jëgënu koo kawe te loolu war nañ ko waxtaanee bu wax a baax benn nit boo jàngal ba man alxuraan ci àdduna benn laa wax de benn daanaka doy nag jàmm yàlla yow nag ñaata ñaata yi ma fekk bari nañ am naa ne boo xam ne kaamil ba bopp boo xam ne man mii nga ko jox kañ ko joxoon maa ko yóbbu jox ko sëriñ alxuraan yaa ngi koy liggéeyal di ko def ci dënni jaam yi te loolu benn métier benn gënu ko ci àdduna waaye benn liggéey it ëpp ko tuyaaba te sëñ Tuubaa moo ko wax kitaabun bihi masaktu bi bihi téere baa ngi nii man ca jàpp te doy loo naa ko loolu wax de bi bihi feneen fa mu wax ne di leeral ni mu jàpp téere bi mu alxuraan boo gisee man la li nga nekku ci dëgër nga sëñ bi daa wax ne ni mu jàpp alxuraan mooy gumba gu jaarul fii tey am fu mu bëgg a te xamul penku ne wala sow mu bëgg ko woon fa mu jëm am ku ñëw ne ko andi tun bi maanaam yat bi nga yor mu jàpp ca kooka di dox wuteeg moom fa mu bëgg a dem yóbbu ko ba mu àgg nee noonu la alxuraan def ak moom maasikat bil kitaabi maska dariri bi yadil qaaidil basiril muin darir koo xam ne dafa jàpp ci tunu ki nga xam ne moom mi ngi gis ba pare bi yeddil qaayidi ku ko nangoo womat al basiri ba pare yor ay bët al muayini ba noppi nanga koo dimbali ba mu am li yett yooyu dajaa daje ne nee loolu mooy alxuraan noonu la téye alxuraan kon nag jërëjëf na nga sant yàlla baax noonu ñu fi teewee sant nañ suñu borom na xam ne jataayub alxuraan ku fi teew suñu borom mën na laa defal tawfiix ju kawee kawe kon noonu lay sant ci turu sëriñ bi di sant ci turu Baye Sëriñ Diop ak ñan bàyyi gannaaw yëpp ak mboolem Daaru Xudus yëpp léegi la ci des nag mooy li sëñ bi daal dénkaane Cheikh Moustapha Mohamed te nun ñi ñëpp mu wax ne nenu fu ñu teewee ci njaboot gi nan ko fay fàttali nga ne day farata loola moom nee képp koo xam ne yaa ngi koy wuyoo ba tey soo doon dox fee gis ku ne sëñ Moustapha Mohamed nga ne rek taxaw wax xam lu muy wax sëñ bi ne lim la jëkk digal mooy na nga sax ci ak jóg yow moom yi loolu bëgg de képp ko nee it mu ngi koy labiré nag comme soobu yàlla comme neex waaye jub ji daal moom noonu nee na moom la nu digal kenn koy na nga koy bàyyi xel suba ak ngoon waxtu wu ne na ngay nekk ci ak jub ak sax ci li yàlla digle ak sariyaha muhammad rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ndax loolu nun moom moo ni wa matta moo ni wax fi mu nuy jaarale kon nee nan fonkat jub gi bu baax moo tax danaa fal di wax ci ndaje yu bari ne mbub mii nu sëriñ bi digal ñu di ko solde yi kenn ko ci nekk boo génnee si kër te sol ko jàppal ne Cheikh Moussa Mohamed moo génn di dox yow mi ko solutit saaboo boo ku ko sol ak kol gi fa nga toog jàppal ne kee Cheikh Moussa Mouhamed Mbacké la ba ba ngay gis la ko weddi ndax loolu la sëñ bi digle ndax lii ma wax ni daal damay bañ a guddal waaye leeral na ko lam ci jublu jubluwu ci ab rafetaay jubluwu ci lenn waaye daa am lu ci nekk loo xam ne loolee la kon nag nee na nun ñëpp nan maasi sax ci ak jub beneen ba ca des mooy tey sunu taalibe doon taalibe sëñ Tuubaa yu dëgg foofu nag la bi nekk boo gisee ci njëlbeen nga am na lu ma waxoon leen xëy na mu ñëwaat ci biir ma nett li leen ko loolu mooy moom sëñ Tuubaa rek la gëm message boobu danañu koy jàllaloo fu bare bare bare bare xam ne moom Cheikh Moustapha moom it taalibu sëñ Tuubaa la ab murid sarix la it wax naa ko ci ay barab yu bari dañoo benn siyaar ca dëkk bu ñuy wax Brescia ca Italie ca Italie ñu jóg bay dem ca siyaare mu mel ne àll da ko dugg ci oto bi mu daal di defe ne Moustapha ma ne ko Mbacke mu ne bëgg naa buñ demee nga waxal ma nit ñi ne leen man ab murid saadix laa <laughs> sëñ bi wax jooju rëy na lool bëgg na nga waxal ma leen nit ñi leen ab murid saadix bëgg na nga waxal ma nit ñi leen man ab murid saadix laa sëñ bi xoolal kon nag kooku mel na ne dimbali wàlle noonu waaye dimbili na ne ñëpp nag tey murid saadix rek lan war a doon murid saadix ndax mag ñi fi nekkoon gëmoon sëñ Tuubaa eh, sëñ maa géey meeg sëñ Daaru Asan Njaay ak ñi ma tudd ak ñëpp kenn ko ne lam am sëñ Tuubaa pas-pas bu wóor ak jox boppam sëñ bi ba nangoo doon dara moo tax moom moo tax moom li bëgg kon ñu nit nan wayfal suñu bopp topp sëriñ bi liggéeyal ko bañee gis suñ bopp gis a gis sa bopp moom nit ñi bàyyiwuñ ko xel bu yaatoo danaa ko danaa ko danaa ko sara sëñ Tuubaa li mu mayee ak li muy joxe ak ndab li mu séddale nga ne kenn ku ne sédd na la ci sa ndab ba ci dongo yi fi ne dongo yi sax léeg-léeg nga mën naa tëjub néegam léegi doog wax la muy wax mu sotti bari na lool jëlee la dans sëriñ kon sëñ bi lim séddale kudd gi dafay yaatu ndax sëñ lay Diagne daa wax ne sëñ bi da ko waxoon ne ko sa ndab li ma leen taaj nga xam ne moom du jeex ndab loo xam ne ñi ko sukk ñooy jeex ñi ko sukk ñooy jeex waaye ndab li du jeex waaye kenn ko nanga ci yéene sa morom jërul booxante jërul tàncante jërul siisan ndax koo ci booxee du tee mu la mu war koo ci iñaane du tee moom ci lam ndax ndabal suñ tool te moo ko duy ndax nee na ndab li moom du jeex waaye ñu ko sukk ñooy jeex waaye boo xoolee ci suñu aadama gi ba ci léegi ku ci ma sukk rek doyal na la ba nga bi de daa bëgg ñu nekk foofu ndabal sëñ Tuubaa li nu yaatal ko te yéene ci ñëpp yéene ci ñëpp ci nja ci ci ci ndab li nga xam ne mooy mooy ndabal sëñ Tuubaa te feet li nag sunu ko laxasaay nag ci di ko dund surtout boobu nag dund sëñ Tuubaa waaye na ñoo xam ne nag maa ngi tuub de dese nañoo dund sëñ bi te dund sëñ bi yi bokk na ci ñaari mandarga yu koy ñaari mandarga yu yu koy wane foo gis koo xam ne la am da ko jox di ko jox taalibe bi sëñ ma ngi dund sëñ Tuubaa déglu li ma lay wax foo gis koo xam ne la ko yàlla jox ma koy fob di ko jox taalibe bi sëñ ak jullit ma ngay dund sëñ foo gis koo xam ne xasit yi dana génne rangoñam ma ngay dund sëñ Tuubaa te loolu sëñ moo ko wax sëñ Saliou ko wax nee na sëriñ bi moo leen wax moo wax ne daa ko ko laaj ne ko waaw di saadix nu muy mel mu ne ko murid day dëgg-dëgg ni mu murid saadix day mën naa gàtt ci ngir nga xam ko moo di sama xasida yi day képp koo xam ne mos naa mos naa génnee sa karango ji rek xamal ne murid saadix nga sama xasida yi ku mos génnee sa karango ji rek murid saadix kon nag war nañoo góorgóorlu ci jàng xasida yi sëñ Tuubaa yi la ca des sëñ bi dara ko déglu mooy dëkkub sëñ Tuubaa bii ñu ne nu taxaw ci tem ci lépp loo xam ne sëriñ bi bëgg ko fi rek waay bu bokk ci ña fay amal lool waaye lépp loo xam ne sëriñ yu bëgg na ko nañ bokk ci ña koy taxawal ca lool ña ko ci taxawal suñu jëm yu bopp yi suñuy njaboot ak kon dajal ci mbedd bi ak koo xam ne jàpp nañ ne bu ñu la waxee baax nga def ndax sëñ bi ni ma man misaal dëkk bi day mel lal bu ñu lal lal ci dorob bu weex tal bëgg ci teral ñooñam yow nga dem taqal say tànk suuf bëgg ñëw cëppeelu ci lal bi loolu loolu borom lal bi du ko seetal te loolu yi ma wax na ko ci mat la bal foofu sëy kon saa bu xëy nañuy bàyyi war may dëkk bi war may dëkk bi te waxoon naa ko fi am at kat doo ko jis de waaye sëñ bi doo daanaka doo jàdd yaari mbedd ak ñett dajewut ak yow sëñ Tuubaa maa la wax loolu man Moustapha Lo mbedd yëpp sëñ Tuubaa li man maa la wax loolu donte gisoo ko waaw sëñ bi loolu duñ tiit nag te dem ndànk fii may wax ne day am loo xam ne des ko wax ci ab rajo waaye ay firnde mën naa la ci andi ay firnde benn par benn lu ma fukk ak ñaar yoo xam ne da tey booy làqal bi tabax bi di fekk sëñ Tuubaa lii ma la wax nii mi ngi ci dëkk bi mu ngi ci suñu biir mu ngi fépp mi ngi gis lépp yow nag bu fekkente ne gëm na ne ka nga yaakaar boo amee yitt boo ko joxee bitéel def ca ndox ne ko nangam nangam day mu daldi la indi ndox mu jox mu daldi mënu mënum taf di jox la nga saañaat bitéel te bitéel boo koy saañ gis nga ne ndox ma du sens couleur ba du sens cafka gi du sens xet ga du sens mais dangay ngay daal di jël wañaar ba mu kii nga def ci sa jiba rocce ko ndànk dem ba ci sëb néeg fa gën a sori nga dugg fa def ca lañ ca def dencaat leneen waaw loolu mooy lan question bango mooy gëm nga ne ndox mi am na lu ñu ko boole xam nga sëñ baa këram mais gëm nga ne ndox mi am na lu ñu ko booleel waaw nooy mën a gëme loolu te boo làqal bi ci bedd mi gëm ne doo dajeeg sëñ Tuubaa nooy mën a gëmee lee te doo mën a gëm ne boo làqal bi ko fii doo mën a dajeeg sëriñ bi wala sa sayxul bi te sayxul murabbi mën ta xeeb de te boo demee ci sifaatu saadiqil muriid yi sëñ Tuubaa wax muy ñeent am na bu maanaam ba ca jiitu mooy ginaaw boo bëggee sub sëriñ ba noppi lu mu digal nga def waaye nag am benn bu ma ci coqati rek mooy talkul ixtiraat te loolu moo xew yënga sëñ diw lim defa yënga lim waxa yënga otoom bee yënga soxna si nangama yënga ne sëñ diw moo na ma yàlla bal moo tax soxna soxna diw allahu akbar loolu bu ko kenn wax ci àdduna maam Thierno ab taal bi mos na ne cas ak satalaam bëgg a jëm ci wur mbël ba mu daw la dab la ko ñu andi ko mu ne ko sa tab bi sawar mi nga aju jëfandikoo sama satala mi ngi ci ajoon rek ca sa satala gi rek noonu nag fii ni ko kab bu sëñ bi naa naanee ci kob bi ñu ne ko ah sëñ mën naa cee dàkkeeloo bu xellee kafe ñu ne ko defal ma fi am sax ñoo xam ne sëñ bi day xelli kafe jox leen ñu ne ko du ma naan ko fi masala ak yeneen ak yeneen nga xam ne bayeetu xel yooyu seexul murabbi tarkul i'tiraad bokk na ci posen bi gën a gis nga wax see yi ni wax nii gis nga wax see bi gën a garaaw ci murit nga xam ne mooy gaaw ci yàq mbiram mooy mooy gars yu baax ngay wax si ñoom la wut man maa la wax loolu sëñ Tuubaa daa def ay anti ay anti anti yoo xam ne boo koy def rek boo la koy sànniwaat doo ko yëg te kenn ku ne def na ci yow loo xam ne doo ko xam mukk ci àdduna loolu mooy tarkul ihtirat dañ ko bàyyi nay yem ci fi nu yem loo bàyyi sëñ bi ak boppam ak boroomam te ñun ñu yem fi nu yem loo suñu yoon nekkut ci lool suñu yoon nekkut ci loolu nañ nañ leen bàyyi seen bopp siñ Modou Awa Ndiaye mu baax ma njaariñ gi la woon ñu bari xam nañ barabam ku fa demoon suba subal tey jii ci ngoon booy dugg ci buntu buntu boobu ubbi koy tëli bi boo nee ana sëñ Modou Awa Ndiaye rek soriwut ko barabu sëñ Silo ñu ne barab ba ba nga ne sëñ Modou Awa ci boppam bi muy bëgg a wàcc ma madame pour mu la sëñ tool yi mu ci mag ñi tam nekk fi ba tey daa raax lu ëpp mool ba mu yegg mu bind ci turam bind ca dab bi muy faatu teg ko ci bopp la loolu defe na gars yi ñu bari mën nañ lool mool baa nga fa boo demee xool rek bul ne Moussa loo ko wax rek demal nga nga essayé dem jaare moo bind date bi muy faatu ak lépp ngir lu ko sëñ Tuubaa waaye loolu la lañ ko may mooy nangu gu nangaloon waaye gis nga moom moom benn bés toog na fii ci buntu kër sëñ fii kër sëñ Mbàkke ma dégg nekk tey jàkkaarloog jumaa ji ci sowu jumaa ji jamono yàggee loolu sans waajur ma ko nekk li sëñ Basiir Lo moom moom sëñ boobu sëñ mu daw dara di fu mu toog mbooloo mi di ko ñaanoo ndax dara jum am ci suñu borom am ku ñëw nag ne keeku mu ñu ne kee di daw Njaay mu ne xaaral ma dem ñaan loo ko ndax nun suñu réew mi fii soxla nañu ab taw bi mu mu jox ko loxo siyaare ko mu ne ko loolu sayite mu ne ko man kat ci réew ma laa jëm Kajoor xuma jàmb dama doon ñaan lu nga may nga dimbali ma ñaanal bu ma delloo rek bët si mu tax topp loolu daal njaay moom lay sàkku ci yow sëñ mu daaw daal ne ko tàll mu daal mu téye ci loxo bi daal ne ko tëf ne ko bisimilah mu jóg dem ba mu jógee dem mu daal di bëreet ne allahu akbar dee leen bàyyi seen bopp ñu di leen tànnal dee leen nu bàyyi seen bopp nu di leen tànnal te ngeen bàyyi tànnal seen bopp fii ne ngóor see nee na ma daa bëgg seen dëkk taw laaj naa ko suñu borom de waaye fii ne xamul ne ruwam gi ndox ndox laal suuf lay xaar te man xam naa xamul gi ndox laal suuf lay xaar te mi ngi yàkkamti bay ñaanu lool te xas na ko ñaan ba noppi kon nag ab bi day yem bëgg sëriñ bi bëgg sab sëriñ amub sëriñ ba noppi kenn xamul loo fa doon baaxut kat loolu kat maa képp koo xam ne bi li ma wax ni laal na waaye sëriñ laa jox ko sa bopp ne ma yaa nag àlla xarel waaye yaakaar te xamoo doon ci kër sëriñ ba loolu lu ko jar xamoo loo fa doon waxuma ak keneen ku joxe sa bopp da fay fis fan ba noppi nag feneen foo gis lu baax nga dem taxaw ca sëñ Moussa gii mii di loola def kenn natt bi lu day digganteem ak sëriñ Moussa Mouhamed Mbacké kenn natt bu diggam ak Darou Khoudoss waaye wóor de kenn natt bu ak digganteem njabootu sëñ Touba gaa yi baax kon loolu kon loolu mooy doxin te loolu Cheikh Ibrahima moo ko waxoon dañ ko laaj ne ko am bu saa jox nu muy mel mu ne ci ñaari mbir sëñ Cheikh Ibrahima Fall benn bi mooy sa seexul murabbi bi nga jox sa bopp soo ko nuyoo soo ko jubee rek nga xam ne sama taalibe bi baa benn baa bu ñaareel bi mooy beneen seexul murabbi waa ju baax joo toogal ba sañoon ay taalibe mel na yow yombut de fexe ba sëb sëriñ xam lan yomb na de waaye fexe ba yeneen seexul murabbi koo ci siyaare yow lu gàtt gàtt ba sañoon ay taalibe mel na yow ci loo ko woon ci jikko ju rafet ak bu baax ak bu taalibe ko murite loolu moom yombut yombut de te na ngeen xam ne dañu si Ablaye Diané daan wax ne kuy wax ne saateeru dëkk dong lay naane sa da nga jekki de kon kon da nga de bul jënd sa kër wala awum nar daan la sëñ Tuubaa lim def fi mu ko def dafa yaatu waaye sab cër nag téye ko bu baax loo cee boole nga boole ko dañoo wax ne say mu rab bi daa war a mel ne mbayum dëpp néeg ñi ñi bay xam na ko yàgg bay xam na ko booy dëpp néeg moom da teg sa tànk rek di ruur gob bi rek di ruur di ruur rek sa muy wër léegi nag fi nga teg sa tànk mooy seexul murab bi kenn du ko nattab li fi nga teg di bay waaye nag foo gisug ñax nag ci lu baax bu neexee bay ko waaye kenn du sikk sakkan fii nga taxaw bi ngay def moom nga koy defal itam lool lool lool loolee la kon nan fonkaat suñu seexul murabbi yi fexee am seeni ngërëm ak ku la yàlla booleel ak nu mën a sant la ngay am ci sëñtuwaa Tuubaa koy amee ak feneen foo mën a jëm ak cër buñ la mën a jox baax na d'accord nag yàlla na la ci yàlla dafa tawféex waaye dëgg-dëgg mbir mi mi ngi ca maam ya fañ la boole woon sëñ Tuubaa nga topp cër boobu nga dox boo ko defee rek cër boobu moom benn cër benn cër rek bu yam ak cër boobu amul kon loolu kon loolu la sëriñ bi di fàttali saa su ne nañ ko fàttali ko waat bu baax feetli waat say yi lu waat jamono ji wax ji bari na médias yi bari na réseaux sociaux yi tubaarkàlla damay fàttali wax tey wax naa ko nee naa ko réseaux sociaux yi ñu ngi leen di ñaawal ka waxal waaye man ñaawaluma leen da tax ñaawaluma leen man daay seet la ma ci amal njariñ ma jëfandikoo ko waaw loolu la léegi yow la ci am njariñ sëñ xaali gii mii tey boo la neexoon léegi nga laa la koy tàppe gis ko mu jàngal la boo soxlaa bàyyi seexal xataa ba mu jàngal la ah boo soxlaa sëñ sàmbay gis ko boo bëgg alxuraan gis ko lépp loo bëgg ci lu baax boo soxlaa dunduk sëñ maay bi wala yu demee noonu boo boo ko tàppe gis ko kon ini kon tawféexi sëñ Tuubaa jum nu andil kon bun bun toppoog ñi koy saboté ba tax nu duñ ko jariñoo nan ko jariñoo ndax fii ni boo waxtu jotee mooy nodd nga xam ne wi jot na kon yooyu yëpp am na njariñ beneen mbay ci amul njëriñ mooy salbiyaat yi li ñuy wax ay salbiyaat muy muy négatif yooyu nag dañ ko waxtaanee ko nag moom te loolu mooy benn way jékki-jékki rek sànni la ab audio salaamaaleykum wa rahmatulahi bëgg a waxtaan ak yéen na ngeen xam ne bu subaa ci waxtu sàngam dégg nga am na luy bëgg a xew aspirine nangam bu kenn naan nee nañ tubaab bi ko naan gis ngeen ko noonu daal faatu daal di jàll waaw kooku mooy kan léegi waa ji wax loolu kooku mooy kan. pikir boobu boo ko lal ndax pikir bi naa nangu waaye ndax kooku ngay ngay bu ko defee li ma ci metti man day am ñoo xam ne loolu dañ koy jël sànni wat la ko billaahi li may sànni ci lu mel man bu ma ko doon wàññi dama rus waaye kon maa day tali ndax day am koo xam ne li sànni ko te yow ki la ko wax xamoo ko am am na bis boo xam ne période laa jël bu yaatu lu mat trois jours damay may tudd nit ñi ay kilifa àdduna ku ma sànni lu mel noonu ma woowaat la téléphone siyaare la ne la waa ki doon wax li ba mooy kan bu ko dee mu ne ah man kat dañ ma ko jox donc dañ ma ko jox donc te gis naa ne li ci ëpp nit ñi yi ñu ci gën a soxlawoo mooy yi tukkal adduna yitti ko la àdduna fan yi li xew ci réew yi du tudd kenn ak kenn li fi xew ci fan yi ci média yi kenn ku nekk mu neex la mu naqari dugg na sa nopp li ëpp ci nit ñi itam tudd nañ ko ci seenu làmmiñ muy coow yi fi xew yi mu coow yi ci xew yi maanaam lu ñu mën a wax ci lu baax a ngi fi de bare bare bare bare bare bare waaye doo dégg média yi coow ci keroog bañ màggalee màggalu Daaru Xudoos ba ci subas ak ak màggal Tuuba lu ëpp loolu daam ci ëpp ban média nga yan média ñu jël ci semaine di ci wax ak ak di ci ak di ci ak di ci débat ñu néew ci wax yëg naa leen nag yëg naa la sawaay ak yeneen gaay yi ña ca wax ca sëñ Moustapha ak yeneen yeneen xeebu mu wax jooje waaye média yi nii kii fii ne na nga boobu waroon nañoo ko nag de ah ngi wax dara kat sëñ Modou Moustapha kat woote na ay nangam mi dafa teew te buntu kër ga lañ fanaan bañ noddu fajar sëñ Moustapha Mohamed ànd ak mbooloo mu julli ci fajar ga ànd ak jumaa ji ak sëñ Mountakha waaye loolu doyul débat bu neex doy débat bu baax mm-hmm. waaye ñu bari xamuñ ko fii ne ñu bari xamuñ ne sëñ Moustapha fa la toog ba fajar ñuy bëgg la sajaada gi mu ne nañ dem nañ déglu jumaa ji ndax sëñ Muntaxa nga fa bu ñuy julli ñu ànd ak moom loolu lool lool lool boobu débat bu ko dàq daam ci àdduna ah te sëñ Muntaxa wax fii ne ku ci bëgg mu tey la defal li man ku ko bëggul nag yàq yu baax yooyu ne noonu bu buñ sàgganee gars yi na koy sàggane fii ni temps yi am na télévision yoo bari yoo xam ne saa boo xoolee ci koñ bi da nga gis kuñ fa office ah ku daa yëngu ci dara ñu ko fañ office saa sëñ Ahmadou Maxtaar mu tedd mii sëñ Muudu Maxtaaru moom Cheikh Aw Ball dem naa fa bari ki démb siyaari jox benn télé laa gis mu affiché ko muy Lamp fa yendoo ko fanaanoo kooku lim liggéey boo ko doon indi benn par benn bari ki démb rek daanoo loolu barke sëñ Tuubaa jël bu garaw ci li wax sëñ Cheikh Mbacke sëñ Cheikh Mbacke gay defante xam naa ne booba at yam tollu ko waaye la mu wax sëñ Cheikh moom ak Cheikh Ahmad Tidiane maanaam loolu dañ ko doon dellu si tey tey tey tey de kon kon ko xoolal ko te noonu la meloon gaa yu baax yëpp kon ku mel noonu kon nag war naa fekk ñu di ko wax ba gone yeeg ñëpp xam ko waaye dañuy bay rek mu jàll waaye bu dee mbirum lamb bu dee musicien bu dee footballkat wala leneen leneen ñu jox ko cër wane ko feeñal ko fisur kon nag léegi sax mooy kon nun ñi noo war am fulla ak fayda ci sun média yii nu am ak sun dayre yii nu am ñu di ci waxtaane sëriñ bi te di ko dund sëñ bi dañ koy dund de boo ko dundee nag mu daal def ci yow lam defoon ci mag rek te loolu laa leen mi ngi fi ba léegi barke sëñ Tuubaa la fi nekkoon mi ngi ci mag ñi ba léegi mi suñ sëriñ fii ba léegi kenn ku nekk la yàlla booleel jàppal suñ tuwaay def ca mag ñi mi ngi ci moom soo ko joxee sa bopp te bàyyiwoo ci dara boo ko soxlaa mu ak si yow daanaka sax jërul nga di ko gis wax naa ko ba tey bis ci Espagne nit mbir dikkal na ko mu doy waar moo xam ne bëtin rek ay seconde ay ay seconde rek bëtin wala loola jeex wala wala wala ñu dar gi ñu fekku ñi ca hôtel ba wax ñu fexe leen ba dugg ci noppu sëriñ bi Cheikh Moussa Mohamed yàlla na ko fi yàlla yàggal mu duggee ba ba waxtu añ weesu ba daanaka xewle waxtu wii mu door a laaj lu xéwal yi woo ma man ak xadim si la ak keneen ñuy xewlu nii fekk afaa muy ubbi woote waat nañ daañu loola lépp di doxee na fa tabbi géej dara xewtu safara wu na fa saasa ba mu duggee noonu ba rek biñ nee bay añ nag loolu yéem ma lool ndax lool daal ni su mën a safara jaaxal na ma ci ay seconde ma di ko bëgg a wax waaye ñemewuma ko ndax kilifa dangay xool léeg-léeg bu ma xoolee gis bët yi soppi waaw bëri so tawit waxutu ko noonu ma bàyyi noonu di bàyyi noonu di bàyyi noonu ba ci biir ba ci biir ba ci biir gars yi di kaf danga nag ba ci biir nag ma door ko wax ne ko sëñ bi di ah diw di am na tawféex tey jii mu daal di xefeet ma ne Moussa ma ne ko Mbàkke mu ne ma xanaa xamu ne jaral day am dégg leen baat bi la jaral day am fexe leen ba suñu service yi ñu jaral leen xanaa xamu ne jaral day am waaye diw nangam gaar na ko ñu laaj ko mu ne ah diw man wala diw faatu ñu ne sab bi yi ñu ne mu ne sëñ ma ne teg wala sax xam na ne joxoon nga ko sa bopp waaye lii la gaar nag fu mu sukkandiku ba dimbali la amagu loolu moo mën a wat moo mat a wattandiku te gaa yi bari ñu def loolu nag loolu moo mat a wattandiku Côte d'Ivoire gii diit faatu na fa xamuñ fu mu dëkk ci Sénégal ñu ne nañ ko fa denc bañ ko waajalee ba yeggale ñu laaj ko dib sëriñam ñu ne xamuñ ko ñu ne sëñ diw di mi ngi fa woon dama koy bañ tudd rek sëñ diw di mu ngi fa woon te ñu ko woo kon mu ko ñu ne ko bisimilaay ñu dem ci kër gi ñu ko daal dikk ne ko daa am fii ab sénégalais ba faatu ñu bëggoon nga taxawul na ko sëñ boobee ñëw ne defar sàppe si daal di xool dajoor jorob càmmoñ bi mu xoolee ba yeggale daal ne ku doon ku xoolee ndeyjoor càmmoñ daal leen laaj ne ku sëriñam am ko àdd si koo xam ne xaritu waajee mu ne ko sëñ diwu Mbàkke ndek ndeke moom mii lay waxal moo doon sëriñam waaw billahi lu ki tey man sëñ baa xam naa ko bis bu ne ma siyaar te ñoo ko fekkoon nekk sëñ bii kuy bëgg jullee lay waxal ndaxte sëñ laaj ne ko doon sëriñ mu ne ko sëñ diw Mbàkke mu ne bismillah defal leen sàppe ñu daal defar sàppe mu daal ko jullee am na ca ba ñaanal ko bañ jël see ba ci kër gi mu mag magi taalibe ak magi murid ne leen na ngeen góorgóorlu ci taalibe te fonk seen seexul murabbi yi te joxe addiya seen kii ma doon laaj ko dib sëriñam boo gisee ma doon laaj ba xam ko d sëriñam bi muy bëgg a kabar genn ganaar gu ma mos a jox mu romb nii yàlla genn ganaar gu ma mos a jox te ndeke ëdd yi ndeke buñ la bu ñu la tëlee di la waaj waajal ëdd yi day présenté wu loolu nga ci rek mu nekk ganaar ga ca laa ne tikki ba xam ndax kii moom daa doon daa doon seexul ma rëbbim far ñu ne ko yow mu ne waaw lool la waaye daal ne nag waaye nag dimbali nañ ko te ak ganaar la ma su joxe ba mu ko ne jébal naa la sa bopp kon nañ bàyyi loolu jébal naa la sa bopp diw laa tudd daal cay pare am na ñoo xam sax da ngeen dema dem ba naan la yóbbu ma ci sëñ bi ma siyaar ji ko wala sëñ bi man dama xamewul waaye daaw jéeg laa ko jox daa ko daa ko joxoon sa bopp wala dawati jéeg wala nangam nangam kenn du ko def ab sëriñ dañ koy noote ni ñuy nootee ay tool ab sëriñ dañ koy noote ni ñuy nootee ak ngoro loolu la ñuy wax dañ koy noote ni ñuy nootee ab tool di ko noot ni ñuy nootee ni ñuy noo ni ñuy nootee ngoro sëñ tu toog na ba yàgg ak gone jaar nee rek di di jàng te way tawaytu tariqal xaw mi waqtamti daayihi wali xat xatal xaajaati bi raxudi wal bas li tax jege sëñ bi baax dama ne indi misaal rek ci ak gone gone goo xam ne mësooragut di wax loolu sëñ bi ne bëri daal dugg ci néeg bi daal di jël roxasaay takk ci ndigg li ne ko fiit ba mu dëgër mu ne mu waay kii li muy wax ni lu mu doon waay defal leen ma ko ñu laal dab ñu andiwaat ko mu ne na waxaat li mu doon wax ñu ne ko jàngal li nga doon jàng mu ne tawaytu tariqal qawmi waxtamti dayhi wali xat xatal xaajaati bi rawdi wal basi sëriñ bi bismillah damaa defoon ne sama sang bëri su lay daa bu ñu ma ca ñu ma ca bëggoon a jiitu ndeke mana kii kat boo gisee may laaj may laaj ku mu doon ngóor si bi muy romb ni dem di jub kër gi dama dégg kanu damaa dégg kanu malawul ahlaay di yëngu rek maanaam wàllu xewati tey ji nekk ngóor see ko yëngal ci bayit bi muy jàng kon kon gëm sëñ Tuubaa topp ko te laxasaa yu mat na ko maa ngi jégalu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu